dana baax waaw lii moom paa la boo xam ne vraiment dañ cay kontaan sëriñ nag moom defal nañu fi wax dëgg yàlla ndax ñëw na fi defal ñu fi ay làmp solaire waaye nag ñun loolu bëgg nañu courant bi dugg ci biir bu courant bi duggee ci biir suñu làmp yi tàkk comme ni nga xam ne moom la ñuy defaree suñu bunt yi bunt yi ñun ñoo ko defaral suñu bopp gardien yi ñun ñoo koy fay loo xam ne yàqu na fi ñun ñoo koy defar suñu bopp loolu nag gannaaw yéen ñoo ngeen bëgg nañ ngeen defal ñu benn kanaal boo xam ne dana am ndox usé yoo xam ne dañ ko ñu mën a def su munta am euh, rigole bu dem ñu am loo xam ne dañ koy vider di ko jël chaque yi ñu jël ko loolu ñu ngi la ko ci ñaan marché bi kontaan nañ ci yéen de wax dëgg yàlla kontaan naa tam ci sëriñ bu limee damay juum parce que lii ce n'était pas évident tey ñëpp xam nañ ne programme mu tey bi dafa xat parce que ñu bëri ñoom ñoo oote kon su baye yitem ak lepp ñew teewee ça veut dire que mom mi ngi dox ci li nga xamné mom son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye oté et son premier ministre monsieur Ousmane Sonko. di nuyu aussi ñi nga xamné suñu collaborateur lañ Adja Rose ak monsieur Baro bu nga xamné mo moo nekk le coordonnateur bu parti Awale bi nga xamné docteur Abdourahmane Diouf mom moko jité di remercier aussi suñu partenaire l'opérateur économique monsieur Lahad Babou diapune ne ci bi bu baax ak le pharmacien docteur bu pharmacie Salam bi diakarol, diakar mettre une pelle mécanique à notre disposition ak ak camion bolé aussi ay moyens aussi monsieur Laminka, aussi chef de service à l'urbanisme de mais monsieur le gouverneur Lamine lépp li nga xam ne dafay contribuer ci développement dëkk bi ci wàllum assainissement nettoiement Lamine Ka kenn jiituwu ko ci tey soo xoolee en bleu yëpp xëy ndaw ñi lañ bokk man mii bokk naa suñu leen coordonné kon Lamine taxaw ci yëkkati alalam aussi def ci kon kooku tey dama bëgg ñi nga xam ne ñooy collectif bi ak waa Kaolack yëpp ñu belal ko tàccu si loolu weesoo Ahmed Ba aussi gis nañ taxawaayam Adja dégg naa yaayu yore case des tout ñu ngi lay dalal ak jàmm man maa ngi tudd Pape Simakha bokk ci coalition Diomaye président yaakaar naa ci projet bi bokk nañ si ñu si taxaw suñu njëkk a dugg kaso ci xeex bi man mii Pape Simakha ci laa bokk maa doon coordonné collectif sàmm suñu démocratie tey dañoo xeex fayit ba toll fi ñu toll tey projet bi duñ ko bàyyi kenn dañ ci taxaw sàmm ko aar ko ba nga xam ne tey kenn du ko jéem a yàq. ñi nga xamne pour saboter le projet ñun le collectif a suñu projet ko défendre quel que soit le prix à payer nous nga xamne tamit autorité administrative yeen civisme le ministre de l'éducation. Nous ñu le ko parce que nit ki da nga wara da nga civisme autorité dañ ko respecter parce que le gouverneur de la région de Kaolack, c'est lui le représentant de l'exécutif au niveau local kon kooku ñëpp dañoo a Samuko, respecte ko sàmm ko son excellence le président Basile Diomaye Fay, parce que Momo Nek son représentant Nous sommes les boucliers de l'administration au niveau local national un peu partout loolu dinañ ci taxaw di wax le lancement officiel am na leneen loo xam ne war nañ ci taxaw te dinañ ci dem di interpeller son excellence la président Bassirou Diomaye Diakhar Faye Kaolack soxla na gis boppam ci li nga xam ne mi ngi xew ci gouvernement bi ci fekkee xam-xam bi ci fekkee charisme bi ci fekkee taxawaay ci wàllum liggéey ñun Kaolack ñi ngi réclamer suñu wàll parce que dañu war a jox nag cër boobu dañu ko war a delloo parce que Kaolack fu mu toll nii Kaolack ay orphelin ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk dañoo war a am ñu leen jàppale te ñun ay ndaw lañ bokk ci combat bi bokkuñ ci benn parti politique nag bokkuñ Pastef bokkuñ feneen mais dañ bu xeex jotee dañoo xeex bu dem kaso jotee dañoo dem kaso ñu ñuy affecté de gauche à droite kon tey dafa jot tey Kaolack ñu delloo ko li nga xam ne tey gouvernement yi fi jot jaar yëpp defal nañ ko waa Kaolack kon pourquoi pas ñun kon dañuy réclamer ñu jàppale waa Kaolack ñun nag ñu ngi wax li nga xam ne tey mooy taxawaay bi jeunesse bi yëpp nañ ànd takkaayu ànd ak monsieur gouverneur lépp loo xam ne programme la monsieur le gouverneur ñun taxaw nañ pour accompagner leen si. ci loo leen nekk dinañ ci nekk di beral nuyoo aussi kenn ki nga xam ne si ñun la bokk muy suñu conseiller technique muy grand xalifa wadd ma bugg ngeen mayal ma ko loxo mu ngay liggéey liggéey bu am solo si suñu wet ñu duñu conseiller ñu jàppale kon tey fu may daanelee. mooy ñi ngi oowaat encore une fois jeunesse bi ñu taxaw doon benn accompagner ki nga xam ne moo nekk monsieur le gouverneur ci projet yi nga xam ne tey moo koy piloté ñu jàppale ko aar ko ba nga xam ne tey lu ñu bëgg am ci dëkk bi dinañ ko am wasalaam. maa ci nekk ci turam ak ci jotaay bi fii ma ci jiital euh, monsieur le gouverneur monsieur le préfet les services déconcentrés yi nga xam ne ñu ngi fii. di defal Serigne maire de la commune de Kaolack qui bu am solo ma ñëw rek di wax ni je pense que si duggé marché bu ndaw monsieur le gouverneur m'a lay interpellé di interpellé walé parce que vu l'occupation anarchique bi nga au sein du marché je pense que c'est à revoir donc lolu yaakaar le délégué fait partie du comité de gestion de la municipalité activité bu melni bu ko beaucoup bu ko qui ci groupe bi nga vraiment on aurait venu

Kaolack a souffert pendant 40 voire 50 ans ci lan divergence ngir yàlla maa ngi lancé appel solennel di ci jiital le gouverneur di ci tek le préfet di wax service déconcentré tok fi, di wax imam yi xalif nañu jël Kaolack ñu def ben journée de réflexion xool vraiment entité yi nga xamni ne ñoo fi nekk ak doom yi nga xamni ne juddu nañ tey yàlla may leen dara ñu mën dara nous mun leen a ñu bokk ossature pour le bien de Kaolack et de la population de Kaolack. La population de Kaolack a souffert pendant 40 ans et je pense que avec ce nouveau gouvernement wax deug yalla bu féké dañu bëgg liggéey bi ñoŋ il faut que nous respections les rangs ku nekk xam fi nga wara taxaw ku nekk xam li nga wara def. Monsieur le gouverneur vraiment maa ngi lay remercier ci coordination bi nga xam ni yang koy def yaay suñu njiit té kenn mënu la tëb kenn mënu la ron. mais aussi amna lo xamni mi ngi fi am Lima gis li na li ran ci ñag bi la jëm. Je ne ci bi monsieur le gouverneur je vous lance un appel solennel pour que Kaolack retrouve une paix bi nga pendant 40 ans 45 ans pour que ngiriala, ngiriala, ngiriala, c'est une demande développement Kaolack ñu mun ko en main parce que tey marché bu ndaw marché dëgg la xëy li chargé de l'assainissement mais est-ce qu'on a vu quelqu'un venir demander ou une demande pour ñu ñoo def ko fait bu fekkee marché Medina Baye il y avait un trou de presque plus de 40 ans je pense que odeur ba fa nekkoon man mii maa marché euh, central on a eu la main mise sur ce marché donc nous jaar fi nga administrativement fa lañ war parce que yow gis ni vraiment vous êtes une personne très ouverte di préfet dina ma woo dinañ conseil dinañ échanger ci wu lu bari ci lépp pour le bien-être de la population donc vraiment may gàttal fii samay wax di wax ni Kaolack benn de la beaucoup. Que kenn nous vraiment dans l'unité Inch'Allah, ensemble nous allons faire rebâtir Kaolack merci. monsieur le préfet du département de Kaolack la Lattir maa ngi du madame la maire ma Diouf madame le directeur général de l'agence nationale de la case des tout petits madame La Diallo euh, di nuyu comme zone comme Pagène chef de service Madame coordonnateur sonagère de Tchoun, des euh, deux forces de défense et de sécurité yi di feeñal mbégte am euh, activité de set setal bi dans le cadre de la troisième édition du Jeunesse setal suñu réew de son excellent le président Bassirou Diakhar Diomaye Diakhar Faye moom la troisième édition euh, liñ gis nii nag mu dal suñu xel parce que président moom initiative la mun am manifeste ko par une volonté politique xàll yoon bi mais askan bi loolu ñoo koy matérialiser loo tax bi mu ko wootee il a beaucoup mis l'accent sur la communauté ñu xam ne mbir mi suñu mbir la moom day xàll rek ñu ñoo war a jël yoon bi nag concrétiser volonté politique boobu muy sottal suñu bopp ma gis ni waa Casamance waa Casamance et plus particulièrement responsable marché bi délégué maa ngi lay nuyu maa ngi lay fàtte tout daal sax parce que yaa ñu fi dalal que taxaw ngeen si loolu pour marché bi seen dëkkuwaay fi ngeen di nekk di fi daanee seen doole mu nekk si anam yu set parce que marché tamit dafa war a set naam pour ña fa mais également pour nit ñi sawat di fa n'est-ce pas donc si ñaari aspect yooyu yëpp da ngeen ko war a xel su weesoo journée bii ngeen def dañu def tuuru marché bi gis li ngeen def si liggéey si mbalit li ngeen fi tonn si suuf bi ngeen jëndal seen bopp rembale seen marché bi dafa war a nekk benn action continue de tous les jours warul nekk benn action ponctuelle li si des ànd na nag madame la maire euh, ma jigéen dafa naa taataan na euh, li ngeen fi wax si ay demande doléance sax mais ay bëgg-bëgg te mu normal parce que soo nekkee fenn di liggéey mu lëndam te mu soxla éclairage te maire yor ko

C'est engagement sur la disponibilité Nous avons cité exemple pour que toute l'équipe municipale puisse se mobiliser à son image vraiment donc ñu savons comme nous mu ko waxee mbir nous avons donc ñoo bokk sommes bi liggéey bi dafa bari moo tax ko ay pàcc ñii ñu responsabiliser leen responsables d'une responsabilité mais autant que nous sommes nous sommes là pour servir l'intérêt général parce que la municipalité c'est un démembrement de l'administration le maire quel que soit son autorité c'est un agent de l'État C'est également bu ko L'État, état moo bëgg a yombalal mbir mi def déconcentration de gouverneur et préfet ak sous-préfet Il leen une yi de décentralisation à travers des maires et des présidents de conseil départemental mais lépp est état tay suñ fi taxalul woon un tribunal d' instance un tribunal de grande instance ku soxla woon casier judiciaire bëgg a dem ba Dakar day métti yombalal yooyu rek moo tax état bi jël ay sañ-sañam tàbbal ko ci gox yi pour mu gën a joxe gox yi mais finalité bi benn la ñu xam ne nit ñi ñu fi tax a toog ci suba suñu xëyee suba ba ngoon ci seen soxla la ñuy dox parce que jàpp nañ ne Kaolack su amul woon askan du fi yeewoo kenn du fi mettre en place une administration on est là au service des populations et comme nous, meilleur sama chef de service, on doit tout faire pour que les populations puissent se reconnaître dans nos actions de tous les jours. L'administration, pour population populations, gisul n'a plus à toi, sans raison d'être au niveau de la région du département ou de l'arrondissement en tout cas si nous suba sur ngoon si maintenant comme nous ñu ko nous nit moom Nous sommes bu mat de boobu ñu def tamit day feeñ si action yi ñuy def tous les jours mais su boobaa nit ñi dañuy juger rek si yéene bi nam parce que tubaab dafa ni l'enfer est pavé de bonnes intentions même si sa yéene bi nga am pour def lu baax ngay def safar te doo ko tey voilà mais suñu yéene moom mooy Kaolack bokk si région yi ñu cité en exemple si lépp nag tey xëy na nettoiement moo ñu fi réunir mais su weesoo nga Tuubaa ma lépp rek lépp lépp lu nit di yëngatu Kaolack ñu ko exemple parce que Kaolack nous concernant personnellement c'est notre région de cœur man fii laa tàmbalee il y 24 ans def fi deux postes ñëwaat fii defaat fii depuis après 16 ans ma ñëwaat sama carrière 24 ans rek def naa fi Saloum pratiquement 16 ans ou 17 ans yi Saloum laa ko def entre Kaolack démarré Koungheul nekk fa premier préfet nekk préfet Malem ñëwaat Kaolack comme euh, gouverneur donc Kaolack lu ñu miin la donc ñu gën a góorgóorlu takk laxasaay xam ne mbooloo mooy doole n'est-ce pas donc euh, en fait euh, loolu laa bëgg ñu liggéey c'est une invite que je lance aux populations am na yoo xamante ne amul solo n'est-ce pas yàlla xam na nit ñi xam na xam nañ nekk si xol yi loolu am solo n'est-ce pas te li si moom dañ koy bàyyi ak yàlla suñu borom rek nekk si li war a nekk nekk si li war a nekk moom moo am solo ni ko kilifa yi di waxee donc di sant di gërëm bu baax di feeñalaat mbégte bi ñu am te fekk lii jotaay bi di leen ñaax nag ngeen koy continuer ngeen koy continuer euh, du ñàkk beneen édition tamit ñu jaaraat waaw xool ba xam defi lan leen di lancer ba xam da ngeen ko def parce que ñoo ngi fi wala loo leen gëm nag di ko continuer di def donc de manière euh, improvisée nous nañ fait jaaraat xool ba xam loolu partenaires également te de bonne volonté docteur pharmacien également des initiatives communautaires et on a besoin que des personnes ressources puissent accompagner ces initiatives-là. je euh, félicite également Madame le directeur général de la carte et tout euh, de ko ñaanal ndam si président am kóolite dénk ko ko parce que depuis mu dénk ko ko gis nañ ne chaque fois bu jeune bi amee day jógee Dakar ñëw ba fii pour ànd ak mu nekk présence bu am solo tout comme également madame l'honorable députée euh, Roxi Ndiaye chaque fois dam doon accompagner mais euh, tey mu am gant donc ñoo ngi profité également di ko remercier si présence ak accompagnement ak kilifa yi nekk fii yëpp n'est-ce pas donc di invité ñëpp ñu nekk benn say xam ni boole moo solo li euh, dañuy donc di bu baax di gërëm bu baax euh, nationale de la petite enfance et de la case des petits donc euh, tey dama les autorités administratives et territoriales pour répondre à l'appel excellence le président de la République à tous les citoyens à tous les sénégalais à une journée d'assainissement une journée de nettoiement donc euh, nous une ko édition ko initiative accompagner participer activement du nettoyage oui, euh, activité yi nga également la population euh, organisée nañu ko euh, ak comme bu m'avez dit, tey fi ñu nous nii nañ ci également pour accompagner maintenant nous saluer l'initiative, mais également di les Kaolackois à ce que ñu gën approprier wu ces ces ces journées d'investissement humain nga xamante ça nous permet suñu environnement ñu mën contrôler nous a contrôler suñu santé parce que boo bëggee environnement yaram aussi environnement bi nga xamante ne fay nekk dafa nekk environnement bu sain Benen bi euh, man ñu denk ma la petite enfance nga xamante moy la tranche d'âge 0-5 ans nek tranche d'âge bo xamantene tay euh, encadrement lañu laaj orientation lañu laaj té je pense que né liggéey bi nga xamantene ne sas nañu ko suñu ko défé ni mu waree euh, son excellence dootul jarati sax xamna fi quelques années muy lancé ci ben appel dinañu dem ba xalé yi dinañu approprier wu projet bi dinañu approprier wu idée bi ba euh, ñom ñoy génn par eux-mêmes de dire ces ces genres d'initiative donc nous loolu principal objectif vraiment de féliciter di encourager toute la population kaolackoise pour répondre à l'appel de son excellence le président de la république. waaw euh, dama commencer une euh, tournée nationale Tambaliko, la euh, région de Tambacounda à Kédougou Je du 5 au 10 entre Kolda, Sédou et Zingenchor. Parce que dans ma vie, que né, euh, pour que je sache ce qui réellement dans les structures, les structures de développement intégrées de la petite enfance, les structure qui sont les structures qui ont 0 à 5 ans, qui ont fêté, euh, tu es à Dakar, tu es à ce bureau, nous lui donnons des rapports. Donc, c'est ce nous avons installé ma ne na équipe technique yi nañu ma préparé benn planning boo xamante ne tournée nationale lay doon ñu dem ci jox goxaan yi dem rencontrer ji li ñi ñuy wax les acteurs de la petite enfance ñu jox ñu seeni ay orientation parce que dañu jàpp que ne am na ay mesures yoo xamante ne ay mesures yu mënul xaar la balaa rentrée prochaine dañ ko war a jël pour le bien-être des enfants mu am yeneen mesures yoo xamante ne ay mesures yu ñu yu ñu xalaat la yu ñu war a saytu la donc yooyu dinañu ci waxtaan ak suñu kilifa di suñu tutelle muy euh, le ministre de l' éducation nationale Moustapha Mamba Guirassy